bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahabatihi alghurri almayamin wa ala xayri xadimihi dhi lhabli almatin wa ala man iqtafa atharahum ila yawmi ddin bokk jëli di assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bi nu santee sun borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Asayxul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xam ne tàbbi nañu ci tey di shahr Ramadan al mubarak weeru barke weeru ngëneel weeru xéewal weeru lépp lu baax noo ngi ci ndokkeel ñépp di ci jiital Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi nekk Serigne Touba di ñaan suñu borom mu bàyyil nu ko fi mu yàgg fi lool te wér lool lim naa la Serigne Touba lépp sotti coleet ci loxom bi lépp ñu ànd ko moom nuyoo gi ñu koy nuyoo ndokkeel gi siyaar bi yëpp ñu teg ko ci loxol kenn ci njabootam teew fii teew ci ndigalam Serigne Cheikh Ahmadou Khadim Mbacké moom Cheikh moom Serigne Mountakha nekk ci suñu càmmoñ ñu koy nuyu baax baax di nuyu boppam di ko ndokkeel ci turu daayira Muxaddamatul Xidma di nuyu bokk yi ñu teewle yëpp fi ma nekk ni ko Seydou Lahad waxee tom bi ñu tànn fas ko yéene waxtaan tom la bu am solo muy sawmu ramadaana ahkaamun wa asraar woor weeru koor ak li mu am lamboo ci ay àtte ak i mbóot xam nañ borom bi tabaaraka wa taala suñu borom dafa yoonal koor ngir ay njariñ yu bare bare bare bare yu mu lamboo ak i mbóot yu màgg yoo xam ne xalima yi bulaxaa yi yut na ci lu bare bare bare bare waaye xalaati borom xam-xam yi ak fokamaaw yi ñoom dem nañ ba gëlin ci ngir bari ko bari te mënuñu koo jaxal bana soo taala itam dénk wala làmbaaye koor ay xikam ak i mbóot ak i njariñi àdduna yu alaxira yoo xam ne su fekkoon bakkanu kii woor xam na lam la ca nekk mooy mën na koo gis xelam dañ na ko la ci nekk ci yool bu màgg ak pay gu rëy dana ko jural mbégte mu rëy rëy rëy rëy te dana mbébét it weer wi yëpp dana mbébét at mépp doonoon koor suñu xamoon la ca nekk dañ mbébét at mépp doon koor nga lam cay dund ci ruuxam ak ray xaanam kon kuy wax ci maw doom bu mel nii rek tomb bu mel nii day waxe ci kamt layal fa xalaatam àgg ak fa ca xelam toll waaye lu yaatu loolu ma ne su ko jaxal ci benn jataay ma ne su ko ma ne su ko matal lépp itam koor nag wasila la ana aw yoon la wa màgg wuy mën a jur ak ragal yàlla ci di ko koy def te ragal yàlla nag ci la mboolem njariñu àdduna yu àllaaxira yëpp daje ndax li suñu borom wax ci la yoon saa soo nettali ne suñu borom nee na kullu xasanatin bi ashri amthaliha ila samati maati denf bépp jëf bu ab julli jëf ci lu baax dañ ko ful ba muy fukk su mbaam ci coobare nag mën na koo ful ba muy juróom-ñaar téeméeri fulandi mbaa sax moo fukk su mbaam del waxaat ci benn xadis ku siine jëf yi doom jëf yi jëf yi doomu aadama ju nekk doomu aadama baa ko moom nit lu mu jëf moo ko moom ba mu des koor fa innahu li waa najisi bi kon moom maa ko moom tamaa ko fee sama bopp waaw bu ñu xoolee ne suñu borom askane bi teral gi mu teral ko ci askane ko boppam te doon te jaamu yàlla yépp moo ko moom waaye koor la ci moomale bopp ne maa ko moom noonu la teral itam baytullahi xaram askane ko boppam te suuf sépp yàlla ko moom waaye bu ca tànnee koor nag jagleel ko boppam askane ko boppam ngeen ñaari maanaam moo ko waral ba ci njëkk mooy koor ñaari yëf rekk la mooy kafun wa tark koor ñaar rek la mooy fegu ak bàyyi moom ci bopp moom koor ci bopp itam di mbóot mën a jëfi biir la joo xam ne amul jëf ju ñuy jàkkaar lool jëf ju ni kii jëf ñu ne kii kat jëfam ji jëfi koor la xam nga kii julli da nga gis jëf yu jëf mbóot leen kii day julli ko joxe asaka dana am lu mu def nga xam ne kii day natt asaka ka xaj màkk am na jëf yu nga xam ne kii day xaj màkk waaye koor nag amul jënd jëf ju ñuy jàkkaar lool joo xam ne jëf ji nga xam ne lii jëfi koor la kon mbirum biir la kon jëf la jooju kenn du ko gis yàlla rek mooy ki ko gis koo niwul damaa woor doo xam ne dangaa woor kon jëfi baatin la joo xam ne dafa làmboo muñ kese kese kese ba ko ñaareel mooy jumtukaayu notukaayu noonu bi yàlla bi la azza wa jalla ndax yooni seytaane yàlla ko yàlla dolli rëbbu yoo ay yoonam ci nit mooy bànneex yi te nag liy dëgëral bànneex yi mooy lekk ak naan moo tax yonent bi saa sam waxoon ne inna sheytaan yajri min ibni aadama majrat dam sheytaan dafay daw ci biir doomu aadama ni deretam di dawe ci moom kon koor nag bu fekkee dafa jagoo nag loolu mu jagoo kon dafay nekk nottukaayu sheytaane di mëdd aw yoonam waaye di xatal nag ay jaarwaay yu muy jaar bay mën a jaxase nit ak di ko jax-jaxal ci loolu nag la kon la la la yaayoo jagoo askani ko sunu doom askane boppam tabaraka taala mu taxaw nag ci kaw dimbali yàlla ci ci not gi muy not notu yàlla boobu ci lay dimbale yàlla waaye dimbale yàlla ko ci lay taxaw ci kaw dimbalal yàlla lu mu koy dimbale moo li su ma di wax ne in tansurullah yansurku way sabit way sabit way sabit aqdamakum ca kam xam naa nañ mën a dégg nag dimbale yàlla su ngeen dimbalee yàlla yàlla dimbali leen te dana dëgëral seen tànk dana leen dana leen may kat dana leen dëgëral kon nag njëlbéen gi mooy farlu jaam bi ànd ak nag ñaareel ba nag mooy payug yàlla ci gindi gum koy gindi defal ko hidaaya ci loolu muy muy muy muy jéem mooy nit su fekkee dafa jéem ba fa kat nam yam la des na yàllaa ko jàppal tànkam àggale ko ci la mu tàgg wala ni jaahadu fii na leen na di suba la naa ñi nga xam dañoo góorgóorlu def lañ man lépp ngir jëm ci nun yàlla noonu jàppal seen tànk dëgëral leen dafa leen hidaayatu ba bañ bañ bañ àgg fa leen tax a jóg nit ki li fekk ma ngay teg tànkam foofu yàlla yàlla nekk ndimbalam li koy dimbali di ko dëgëral waaye saa bu soppi ko saa bu ndimbal suñu doon soppi ko rek na xam ne kon moom moo soppi ko ndax yàlla du soppi la nefi aw nit lu may ñoom ñoo soppi seen bopp la la yoxe yu ma bi xawin xataa yoxe ma bi am siim kon li fee ngi sax ci njub googu jëm sa kàttan la nga mën lépp rek yàlla sax ci dee dimbale mel ni kon nag soppi ko googu nag mooy baril ay bànneex te bànneex mooy forukaayu seytaan mooy tooli seytaane mooy dox mooy barab ba muy doxantoo mooy bànneexi doomu aadama kon li fekk bànneex yi mi lu mu gën a naat rek taraddut di gën a mën a am li fekk ñi ngi sax di nekk ci taraddut itam jaam bi màggu yàlla du mës a wuññiku ci ab xolam mukk ku ñuy yiir lay doon ci daje borom subhaanahu wa taala ci anam googu na la koor nekki kon buntub jaamu yàlla nekk itam pakk bu koy fekk ci lépp lu du noona su fekkee ne ngeen la màgge na noonu màgge nag ba àgg ci dayu bi kon mënut a ñàkkoon ñu ñu leeral na kon ay charti zahiram mooy charti yi nga xam ne yu feeñ la muy yu ñu xam ci tudd ay arkaanam ak i sunanam mooy ponk yi ak sunna yi ak la ci aju ci ñoom ñaar ak charti baatinam ak la mu làmboo kon loolu mooy waxtaan wi bu dee waajaba waajaba zahiri yeey warugar yi nga xam ne yu feeñ la juróom benn la ba ci njëkk mooy njëkk a fuglu njaal beenuk ramadaan ci séentu weer ba gis ko gis weer mbaa ñu gisal la ko kon benn gis ko ci séentu bu njëkk ci Sha'ban mbaa ñu matal Sha'ban fanweer su fekkente ne dafa lëndëm ba gisuñu ko dese su bu ndee gis ko nag mooy xam ko rek donte keneen da koo gis nga xam ne feeñ na atteb gis la waaye bu dee feeñu weeru koor mayes na ci tegtaloo ci gisum ñaar ñu maandu wala kenn ko maandu sax kenn ko maandu ko ñëpp xam nañ ak maandu sax bu gis na ko des na ci sukkandiku waaye bu doon kori nag moom faaw ñaar ñu maandu ci la ñuy sukkandiku ngir ixtiyaat ibaade gi ba ko ñaareel mooy yéene yéene nag barabam mooy xol dañ ci desuwaat bu ñëwee ci àtte yi ñetteel mooy jàpp ci lépp lu mën a àgg ci biiru nit ki ànd ak fàttali ko koor waxtu yi nga koy def te tay ko ba ko ñeenteel mooy jàpp ci sëy mën a téye sa bopp ci sëy ba ko juróomeel mooy téye sa bopp ci génne ma ni yu moo xam ne yaa ko sabablu tam génn nga xam ne ak jublu la ànd ak bànneex ba baaxu àndal ba ko juróom-benneel mooy jàpp ci génne am wàccu moo xam ne yaa ko sabablu yooyu tënk la waaye dañ ci desuwaat ci ahkaam yi ci gën koo leeral bu dee sunna yi dañ ci ñëw ci kanam waaye ahkaam yi ay at ay attey koor la ci jiitu mooy lan mooy koor koor ci tënk mooy bàyyi ñaari bànneex mooy bànneexu biir ak bànneexu pëy li dal yi fenku fajar ba ci soog jant te julli ci jaam yàlla bu doon tënk koor ci tënk bu gàtt mooy loolu mooy bàyyi bànneex yi biir ak yooyu pëy li dal ci fenku fajar ba jant so te jublu ca jaamu yàlla soo ko bàyyi woon te jubluwoo ca dara doo ci jële dara boo tekki dara kon yéene foofu la amee njariñ anakan la war mooy ab jullit bu doon mukallaf wax ne jot na gént ta moom xel te jot ci wooteb lislaam lu may dafa am gànt ñu déggee ci lool ne kon koor warul xale xale bi jotagul gént waru ko waaye su wooree teewul koor ga dana wér warul ku tàggoo kom xelam ku ñuy tuddee ab dof ak teqali kom xelal xelam teqali ko wax ne moo ko teg boppam moo def lu ko teqali kom xel moo def lu tag lu ko tàggale sagom koo ca waxtu woowee koor waru ko su wooree wala bu ko waree bu ko waree bu wooree koor ga du wér ki antu kom xelam moo xam moo ko sabulu moo xam sabulu ko su wooree koor ga du wér koor it warul koo xam ne woote lislaam assiwut ci moom tey def naa lool moom jamono wees na ko kon dund na ba faatu mu yëgul ne am na yent bu wàcc bu tudd Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam yëgul ne suñu borom wàcceen téere bu tudd alxuraan yëgul ne daal dinañ tudde sa am na ba faatu kooku yàlla topp ko dara ndax suñu borom wa maa kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula bala maa mbugal kenn da fekk sama ndaw njëw ci moom ba àggal sama woote ci moom kon ki jotul ci watu yént bi te loolu defe naa jamono wees na ko léegi ñépp jot nañ ci warul it jigéen ji gis ngànt moo xam nganti mbërëg la ñu di ko wax baax wala nganti gasin la muy deritam doom ku ci ne ci ñoom ñaar su wooree koor gu du wér woor sax day xaram ci moom jël ci abi saydil xudri yi yal na ko yàlla gërëm wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na alaysa isa xaadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum xanaa du ne su jigéen gisee baax du julli te du woor kon du woor waaye koor ga da koy fay du julli waaye julli ga moom du ko fay nganti koor yan ngant yi nga xam ne kum gaar sañ ngaa bañ a woor te doo ci am bakkaar mooy wéradi gu tar ki wéradi wéradi gu tar goo xam ne mënta ànd ak woor su wooree dana ko jural jafe-jafe am na ngantul dog dog ci kaw bu fekkee docteur bu doon ab jullit bu am xam-xam moo ko xamal ne ta wóoroo war boo waree kat daa la jural jafe-jafe sàngam wala daa dolli sag wér di wala daa tax yéex wér wa am na sañ sañu doot ngir loola ba ko ñaareel mooy tukki tukki boo xam ne mën na masaafatul xasr tukki bi an sañes na ca wàññi julli te mooy tukki boo xam ne dem bi rek mat na juróom-ñaar fukki kilomètre ak ñaar kookee am na sañ-sañu bañ a woor ni mu amee sañ-sañu wàññi ay julleem ndax tukki bu gudd ñaar du ñàkk ab coono am ca waaye coono ba nag bari coono ba ak néew coono ba nag mi ngi aj mi ngi aju ci situation kii tukki rek nu mu demee ak donte tukki bi amul lorit amul sañ-sañu am na sañ-sañu ndog ñaar yooyu benn aaya leen tegtale xam ne kaan mi ko mari danaw ala safrin fan iddatu min ayyaamin ukhar suñu boom nee na képp ku wéri di ci yéen wala mu tukki mën naa jàppale idda kooram googee ba ci yeneen bis waaye su fekkente ne tukki ba nag amul benn coona amul benn fitna du ca yëg benn coona su boobaa su wooree nag koor ga mooy doon am na sañ-sañu dog waaye su wooree koor gaa gën nag ndax la suñu borom wa an tasuumu xayrul lakum su ngeen wooroon day moo gën ci yéen ak xadis bi soxna Aysa solo yàlla ko yàlla gërëm mu ne Hamza ibn Amrin al aslamiyi dafa yónni bi sallam ne ko ya Rasulullah te fekk kooku dafa dekkoon ku bari lu muy wor a asuumu fi safar ndax su ma tukkee damay wor mu tontu ko ne ko in shi'ta fa sum wa in shi'ta fa aftir kon yédé kon kon booy tukki kon bu la neexee nga woor bu la neexee nga dog ba ko ñetteel ci ngàntikoor yi mooy jigéen ju tollu fenn jigéen ju tollu fenn am na sañ-sañu dog ci kaw su fekkee dafa ragal lor ci jëmmam mbaa mu ragal lor ci li mu àndal am na sañ-sañu dog bu jàllee mu fay ba ko ñeenteel ci ngànt yi mooy kii nàmpal daganal daganal ci daganal nañ ci moom mu dog fekkee ragal na lor ci boppam mbaa ki mi nàmpal fekkee doom ji mi na ji mi nàmp féeragut te mën a gut a lekk wala nangul ko dul yaayam daal ngant yu bare bare xam su su wooree dana ko wala su wooree sax doo am lu doom ji nàmp kon su booba am na sañ-sañu dog waaye buy fay na da koy booleeg joxe mudd ni ko noonu yun sa xadis bi ko teg dama léegi yun sa waxoon ne inna allaha wadaa anil musaafiri chatra solati wa anil musaafiri wal xaamili wal murdan assawm yàlla wàññil na kii tukki xaajub julleem ci julli ñeent rakka yi waaye teggil na kii tukki ak kii ëmb ak kii nàmpal koor ba ko juróomeel mooy kibaru sinni mooy ki nga xam dafa àgg ci mage ba yaram mu attanda tut koor kooka am na sañ-sañu dog tey lele bis bu set mu jox miskin am mudd su ko amee su ko amul nag ñaar yëpp wàcc na ko su amul lu mu joxe koor wàcc na ko joxe ga wàcc na ko ngeen xadis bi Abdullah ibn Abbas solo wax ne ruqisa li shaykh al kabiri an yaftura wa yat'ama an kulli yawmin miskinan wala xada alayhi bu dee farata yi nag koor ñaari farata rek la am ba njëkk mooy yéene ak jàpp ci mboolem yi do koor bisu lëmm li dal ci fenkook fajar ba ci soog jant ndax suñu borom moo ne lekk leen naan leen ba leeruk fajar gi fees ci lëndëmu guddi gi ay xaytul ab xaytul aswad julu ci ay wëñ waaye jim xaytul abyad mooy leeruk bëccëg bi xaytul aswad mooy lëndëmu guddi gi waaye léegi nag xëy na yooyu bañ cay tegtal boobu moom tëramagut waaye léegi jumtukaay yi mën a xamee waxtu bari na sartu ne ci koor yéene ju jonjoo ak moom ni nga xamee ne yeneen jëf yëpp yéene ja day jonjoog jëf ja su dee njàpp yaa ngi yéene ci farata bi njëkk njàpp muy sëlmu su dee leneen su dee julli yaa ngi yéene ci bi ngay kabar kabaru xarmal jëf ju nekk yéene ja ak jëf ja day jonjoo ba mu des koor koor moom yéene ji ak jëf ji mën nañu bañ a jonjoo biig biñ ne weer feeñ na rek ku ne sañ ngaa fase foofu sa koor pas-pas boobu daal la doy ci weer wi lépp man nga bañ a yeesal lu may da ngaa dem ba am ngàntu dog soo dogee booy tàmbaloo da ngay yéene waat waaye su fekkee li fekk dogo moom yéene ju njëkk ji mooy wéy waaye bu dee ci malike dañu sopp nag bis bu bis bu set nga yéen nga bel ko yéene boppam dañ ko sopp rek waaye yéene ju njëkk ja doyan na ci weer yépp ba tey xëdd it mën naa wutu yéene xëdd mën naa wutu yéene ndax yéene jëfi xol la te ki xëdd day tekkal ne ka am na pas-pas woor moo tax kon xëdd mën a tax taxawaayu taxawaayu taxawaayu yéene yéene ji nag daja sàtt mu jiitu fajar na jiitu fajar kon waxtoom mooy guddi gi lépp la dale ci jant bu sox ba ci fenku fajar diggante bépp barabu yéene la salaas neew na man lam yaj man lam yaj ma siyaama xablal fajar fala siyaama la ku yéenewul li jiitu fajar amul koor su ko da nga dem bu bës seet mosu ko dara nga ne a naafar woor rek koor googu du wér kon yéene ji faaw day jiitu fajar bu dee faratab ñaareel bi mooy imsaaku anis mooy ti téye sa bopp ci mboolem yi dog koor tegtal mooy wukkula wasa boo jëm waxoon léegi lekk leen naan leen ba keroo len na ma guddi gi di feeñ leer fajar gi di feeñ ci len na ma guddi gi moom la suñu Tuubaa di wax ne siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani niyatuna wa kafuna an muftiraat di wa ci baaxin mut'imin bi tayibaat bu dee sunnay koor ñett rek la mooy xëdd sunna la Buxaari yu ak musuñ ko ci soloon jële ana sunu Maalik wax ne lim saa su nee na tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka dee leen xëdd ndax xëdd barke ngi ci sopp nañ na yeexe ko yeexe ko ba ci mujj guddi gi saxaaba yi dañ daan bàyyi ba nga xam ne li des ci jàpp jàng juróom fukki ay ñoo ko xaj ñu door a xëdd jàng juróom fukki ay nag mën nañu ko natt ci Buxaari um su ko ci sol na xadis boobu ba ko ñaari mooy teel a dog ci bu leeree ni jant sona salaasam nee na laa yazaalu naasu bi xayrin ma ajjalul fitre nit ñi duñ dañ dina ci aw li yiw li feeg ñi ngi too teel a dog bu jant soya Buxaari ak Muslim ko ci solo na ko ci beneen xadis boo xam ne du Buxaari ak Muslim wax ne laa tasaalu ummati bi xayrin ma ajjalul fitra wa aqaru suxuur sama xeet duñ dañ dina ci aw yiw li feeg ñi ngi teel a dog di yéex a xëdd jëlin ci Abi Hurayra ba tey wax ne yéen saa sallam nee na sunu borom nee na inna ahabba ibadi ajalahum fitra ki ma gënal ci samay jaam ñi ma gënal ci samay jaam mooy ñi ciy gën a teel a dog su jant soye ba ko ñetteel mooy néewal ay wax wax ju dagan wax ju dagan nga néewal ko wax ju xaram moom daa araam waaye wax ju dagan nga néewal ko bokk ci sunnay koor kaful lisaan fekk saw làmmiñ ci ay neen wax ju ñaaw ak wax ju amul njariñ loolu la suñu dabaa ne masnunuhu thalathatun inda al-labib ta'jilun al-futura min ba'di al-ghurub wa thani ta'khiru suhuri layla thalithuha kaful lisaani qawla bu dee yi yàq koor may lekk ak naan ci tay wala njuumte lekk naan moo xam yaa ko tey moo xam danga jum day yàqu koor bokk na ca sëy dafa yàqu koor bokk na ci génne ma ni yu moo xam ne yaa ko sabablu day yàqu koor àggug dara ci sa biir ak fu mën a jaar day yàqu koor lépp lu àgg cig bëli cig bëli tey lu nooy ndox wala meew wala ëbruy lépp loo xam lu yolom la su àggee ci bëli ga yàq na koor ga su dee lu dëggan nag da koy romb door ko mën a yàq fekkoon dafa am loo dem ci sa bëli lu dëgër nga fexe ba génn war ko lu mel ne xooxu buy wala yu mel noonu soit sa koor yàquwut bokk na ci tam tux kii tux tux day yàq koor banatu xet gu am doole lool xet gu am doole nga banati ko dafa yàq koor saxaarus cuuraay su la duggee day yàqu koor waaye bu dee saxaar su mat nag moom yàqu koor saxaar bokk na ci itam rotal sa yéene jékki-jékki amutoo yéene koor toog yaa ngi jékki-jékki amutoo yéene koor donte lekkoo naanu sa koor yàqu na bokk na ci itam looju mooy wàcc moo xam ne yaa ko sabablu yàqul koor da da yàqu koor waaye bu dee nag koor mu la bu dee wàccu mu la noot moom ñëw yàqul koor waaye su fekkee yàqu sabalu da yàqu koor ga ku jëf benn ci yii ma tudd su ko tayee fay war na ko kafaara war na ko su ko teyul nag fay rek moo koy war bu dee yi ñu sopp ci koor yu bari la dog ci tàndarma ci la bokk ndax li yontu saa sam waxoon ne ita aftara ahadukum fal yuftir ala tamrin fa innahu baraka ku ci dog yéen na doge tàndarma ndax am na barke fi sal fi isal bi tamran fal ma fi innahu tahur su amul tàndarma na doge na doge ndox ndax ndox lu laab la bokk na ci dem su fekkee dafa du julli bi dafa doge tàndarma mu def ko lu tóol benn ñett juróom juróom ñaar ndax yàlla dafa tóol te dafa bëgg lu lu tóol inna laaha witrun yuhibbul witra bokk ne ñaan ci waxtu ndog soo dogee nga ñaan bañ a sàggan ci ñaan ak tagg yàlla ci kam daal ni mu ko yeyoo sant xéewalam ci teggil gi mu la teggil coono ba noppi ne yool ba des fa nekk yool bu màgg màgg bu mu lay dencee bu dee xar ëllëg allah nu abbas ne woon na salaasum bu sàndoog day wax ne allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fa taqabbal minna innaka anta samiul alim Tabarani boo ko solo waaye Sëriñ Tuubaa am na ñaam bu mu indil moom xam na li man aane dafa suntu bayit jeex bayit yu néew la yoo xam ne ñaan gu am solo xam ne jéggalu yàlla yu am solo moo ci nekk kon war na ko fexe mbokkal saa boo dogee jàngoo salaasam su ma sàmm dog Abdoulaye ibn Omar neen daana wax ne dahaba dhama wabtalatil aruq wa thabatal ajru insha allah mooy marwa dem na ñaq wa fendi na te yool bi des na fi insha allah kon ma te sant yàlla bokk yi ñu sopp ci koor itam bari ci jaamu yàlla bari looy sarxe rafetal jëm ci say jegeñaale ak jirim yi ak miskin yi jokk ci ak bokk defar ci diggante ak jépp jëf yu ju mën a doon rek bokk ci taraawix yi muy naafil yi ñuy def ci ci jàkk yu jumaa yi ci guddi gi am na may may yu rëy rëy rëy yu ci nekk yoo xam ne ëppali na ko yeneen weer yi ci des yëpp sallallahu alayhi wa sallam nee na man xaama ramadaana imaana wa ihtisaaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi képp ko taxaw di naafile ci koor gi te gëm yàlla lal ko def na ko jéggal li jiitoon lépp ci ay bakkaaram li antikaaf ci ci sopp la bokk filansil awaaxir fukki yu mujj yi nga di ko féete ci jàkka ngën jaa néewam mooy 24 heures ngën jaa yàgg mooy fukki fan mooy fukki fan yu mujj ci koor gi bokk na ci bari loo ci jàng alxuraan lool ak yeneen ak yeneen yeneen mustaxabaat mooy suti libéef yu bari bari bari lépp lu baax rek bu dee yi ñu sib ci koor mooy ñaw ñam aw ñam ñam dara yàbbiwaat ko yàqul koor waaye sib nañ ko baril ci ay wax donte wax ju dagan la bari ci ay wax dañ ko sib def garab ci sa gémmiñ te ngante waralu ko dañ koy sib jëfandikoo pâte dentifrice dañ ko sib su ca dara rëcce jàll nag da yàq koor ga bokk na ci itam lañ ca sib muy fo ak lépp lu amul njariñ ci wax ak ci jëf ak waxi bébbant salaas nee nag képp ko bàyyiwul jëf yi neen ak waxi neen yàlla amul soxla ci mu bàyyi ci mu bàyyi lekkamu naanam mooy yàlla amul soxla ci korom bu dee yi ca dagg nga xam ne mën nga ko def te du yàq koor dagan na nit ki fegal bopp mu aw tàngoor su ko neexee taal kilimam yendu ca su ko neexee sotti ndox mu sedd ca boppam wala mu sangoo ko wala mu galax ni ko wala mu sarax tamit ko soril bu ñëmul fuqaha yépp dëppoo nañ ci loolu kenn ci Abdurrahman Abdurrahman Abu Bakar dafa wax ne kenn ci saabu yoon sa mas naa waxtaan ma ci bokk ci lam ma wax ne ma laqad ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma' wa huwa saa'im min al-'atashi aw al-harr gis naa yoon saas muy sotti ndox ci boppam te booba dafa woor damaa xamul nag aw mara ko waral wala tàngoor ci lañ gis ne kon loolu dagan na ba ko ñaari mooy dagan na it nit ki xëyee janaba xëyee janaba maanaam ki def luy waral sangu ci guddi gi dem ba set sanguut yàqul koor ga waaye nag am na bàkkaar bàkkaar mooy dañ xam ne kon kooku julliwut suba ñàkk a julli suba kon mooy bàkkaar ba waaye xëye ga nga xëye jana ba jana ba ji yàqul dara ca koor ga dagan na it lépp luñ munta moytandiko dafa ngelaw poussière bi solo la yàqul sa koor da nga yor machine wal di wal sungu si dinaaw di la solu yàqul sa koor ni ko noonu saxar su matt jigéen ji ne ci waañ wi di togg saxar su matt dugg dugg ko du yàqu koor waaye cóolaleel ci nag su ko duggee dana yàqu koor moom ni ko noonu lor yi nga xam ne mooy sa gémmiñ sa gémmiñ di ko wan na yàqul koor wan na say lor yàqul koor dagan na it socc ci bëccëg bi yépp ci sàdd na nga bañ caa tàqal dara lu am caf ko lu mën a àgg ci boliga ndax li saa soo xam ne la wala ana ashuqa ala ummati la amatum bi siwaaki inda kulli solatin su du woon a bañ a sonal sama xeet naa leen digal ñuy socc waxtu julli wu nekk kon ñëw nag ci lenn ci asraar yi ak charti baatin yi ci koor ñu xam ne koor ni ko imaam al-Ghazali waxee ñetti daraja la am am lu ñu tudde sawmul umum ak lu ñu tudde sawmul xusuus ak lu ñu tudde sawmu xusuusil xusuus su ma ko doon firi ci wolof sawmul umum mën naa ko firi firee koorub ñépp koorub ñépp sawmul xusuus koorug ñennat sawmu xusuusul xusuus koorug ñennati ñennat bu dee sawmul umam bi nga xam ne mooy koorug ñëpp mooy koor gi ñëpp xam rek mooy fekk biir bi ba doo lekk doo naan fekk pay mi ba doo sëy loolu ñëpp a ko man moo dañu ne kon koorug ñëpp mooy koor ñëpp mooy mooy koorug amatu naasi ñëpp a ko man wala ñëpp a ko man loolu mooy sawmul umum bu dee sawmul xusuus nag mooy koorug ñenn mooy fekk say nopp ci déglu lu xaraam fekk say bët ci xool lu xaraam fekk saw làmmiñ ci wax lu xaraam fekk sab loxo ci jëf wala laal lu xaraam fepp say tànk ci dox jëm ci lu xaraam ak mboolem cër yépp nag ci lépp luy jur bàkkaar luy jur bàkkaar nga moytu ko ca koor ga ba ci cër yi ba nga war a loolu mooy sawmul xusuus bu dee sawmu xusuusil xusuus koorug ñenn ti ñenn nag mooy koorug xol bi koorug xol nga xam ne mbooleem xalaat yu suufe yi ci xalaati àdduna ak la ci aju nga fekk ko ci xol bi lu dul jëm yàlla nga xam ne sa xol dara lu dul yàlla du ca nekk ci sa lépp nag loolu mooy daraja yonent yi ak siddiquna yi ak muqarrabuna yi ñu àgg foofa loolu du jar guddal ci ci tafsil yi waaye ci tax ki xam ci dëgg-dëggan daal ci jëf mooy jublu yàlla bi kun hil himmati allah azza wa jalla mooy sa sa sa sa dëgg sa dëgg-dëgg yitte lépp nga jëmale ko ci yàlla doo geesu àddina doo ko xool doo ko bàyyi xel wan gannaaw lépp lu dul yàlla melokaanoo maanaam li sum doon wax ne xulillah zumma darhum fi xawdihim yalabuun yow muhammad waxal ne yàlla rek a fi nekk moo wàcce téere yi wàcce yépp yàlla moom rek lañu war a jàmm soo leen waxee li ngeen a war a wax ne léegi bàyyi leen ñu wéy ci seenum po rek ba kere ñu dajeeg seen borom kon bu dee sawmul xusuus mooy sawmu saalixiin sawmul xusuus mooy saw koor ñanat mooy koor gaa yu baax yi te mooy kaful jawaarix anil aataam fekk say cër ci lépp luy jur bakkaar waaye mi ngi mate nag ci juróom benn yëf sawmul xusuus juróom benn yëf lay mate ba jëkk mooy xaddul basor damm sa gis fekk ko ci lépp loo xam ne mën a ci yaatal sab xool ci lépp lu ñu ŋàññe moo xam lu xaram la mbaa lu ñu sib nga bañ koo xool ak lépp luy soxlaal xol bi ba tee ko bàyyi xel yàlla nga fekk sa bët ba ko ñaareel waaleykum salaam mooy xifdul lisaan fekk saw làmmiñ ci waxi bébbant moytu fen ak jëw ak rambaaj ak wax ju ñaaw ak bécci ngeeni nit ak xuloo ak werante ak yu mel noonu waaye taqale ko ak noppi taqale ko ak noppi waaye soxlaal ko tudd yàlla ak jàng alquran loolu mooy koorug làmmiñ sufiyaan nee na alxiibatu tufsidu sawm jëw dafa yàqu koor jëw dafa yàqu koor lay soloon jële ci mujaahid mu wax ne xislataani yufsidaani sawm al ghibatu wal kadib ñaari jikko dañuy yàqu koor ñaari yëf dañuy yàqu koor muy fen ak jëw salaasam nee na assiyaamu junnatun fa idaa kaana ahadukum saa'iman falaa yajhal walaa yarfus fa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul inni saa'imun inni saa'im nee na koor pakk la buy fekk nit ci lépp lu du noona képp ci yéen ku woor bu mu jàll kenn bu mu wax lu ñaaw bu mu ko def su nit ñëwee ci moom di wut a xeeta xeexa moom mbaa muy wut a xuloo moom ne ko ne man daal damaa woor man daal damaa woor mu tafanal yi ba ko ñetteel ci tax sawmul xusuus mat mooy fekk say nopp ci déglu lépp lu ñu sib mbaa muy lu xaraam ñu xam ne lépp lu araama wax araam naa déglu lépp lu araama wax lépp loo xam ne wax ko dafa araam déglu ko it dafa xaraam moo tax suñu boroom yamale déglu déglu lu xaraam mu yamale ko lekk ger sàmmaawuna lil kadibi akaaluuna li suxt yahud yi lay wax dañuy déglu lu ñaaw waaye dañuy lekk lekkikati ger lañu déglukati lu ñaaw lañu waaye lekkkati ger lañu sàmmaawuna lil kadibi akaaluuna li suxt su ma waxaat ne lawlaa yanhaahumu rabbaaniyuuna wal ahbaaru an qalimul isma wa aklimu suxt la bii sama kano yes na bu fekkoon nee na seen kilifa yi arrabbaaniyuun mooy kilifa mooy kilifa yi nasaraan yi al ahbaar mooy kilifa yahudi mu ne su fekkoonte ne ñoom kilifa yooyee bu doon jam ne moo nga ma mooy boroom xam-xam yi rek tere woon nañ leen ñoom nit ñi ca wax ga ñuy wax luy jur bàkkaar ak lekk ga ñuy lekk ñàkk gañ ko ñàkk def de ñaaw na lool lañu def ñoom axbaar yooyu ak rabbaani yoon yi kon noppi ci jëw lu xaram la déglu ko innakum idan mithlahum danga daa jam ak ñoom kon ña koy wax ña koy déglu ñooyam kepp ba ko ñettee ci lay tax ci li tax sawmul xusuus mat mooy fekk nag cër yi ci des yépp ci luy jur bàkkaar muy loxo bi muy tànk yi ci lépp lu ñu sëbale mooy xaram fekk biir bi ci subaha waxuma lu xaram waaye lu lënt rek ci waxtu dog koor day mel ne dootu am maanaa su fekkente ne fekk feggu nga ci lu dagan ci bëccëg maanaam feggu nga ci lekk lu dagan xam nga bëccëg bi lekk daganoon na ceew léegi feggu nga ci lekk lu dagan ci bëccëg bi ba ne ngoon nga doge lu xaram xam nga ci bëccëg bi fegu nga ci lekk lu lew mooy woor nga jant so nga doge lu xaram su booba misaalam mi ngi mel ni ku tabax ab pale màbb ab dëkk tabax pale màbb dëkkub lëm mooy loolu mooy feg fegu nga ci lekk lu lu lew ci bëccëg bi ba ngoon nga doge lu xaram saa bu jégee jëm ci ndax mi ngi mel ni ku am ñam bu baax bàyyi ko fa lekk posen ba ak ndox a ngoog te lu xaraam lu xaraam tooke la lu xaraam posen la buy rey diine lu dagan nag saafara la su su néewee waaye su ëppee nag jariñ soo docteur bi lee ordonnance la garab gi kat del jël ñaari doom su jël ñaari ngoon ngo ñaar doom ngoon nga jël fukki doom suba jël fukki doom ngoon suba nag yaa ngi lor sa bopp lu dagan kon néewal ga njariñ la waaye bali ga lor la kon bu dee lu dagan baril ga ca la lor nekk waaye jëmmi naw aba moom amul lor moo tax salaasa neewoon na rubba sa'iman xadduhu min siyaamihi aljuu wal atash bari na aji woor joj lay cër lam lam amee ca pay ca koor ga lam ci jële daal weesuut xiifa ku mar rek moo tax suñu tubaab di wax ne summa siyaamu fantabi lam lam yanxasir fi adami al akli faqad la taxtarir itruba saim ma aljamaa laysa la fii sa yoon ma jaa nee na koor yëmul rek ci bàyyi lekk bàyyi naan ndax bari na ko woor bàyyi lekk bàyyi naan waaye nag du ca jëlee lu dul xiif baag marwa rek borom xam ni ñu ko firee wut wut nañ maanaam koor gi nga xam ne mooy tax doo ci jël lu dul xiif ak mar ñii nee nañ mooy ki woor ba ngoon dogelu xaraam kooka kooram xiif ak mar dong la ca jële am ñu ne déedéet mooy ki nga xam ne bàyyi na lekk ak naan ci bëccëg mooy woor na waaye jant so mu dog nag ci deri nit ñi doge tàmbalee jëw te jëw dafa xaraam nee na kooka koor ga xiif ak mar rek la ci jële am ñu ne déedéet koor gay jur jële xiif ak mar rek mooy ki woor waaye sàmmul ay cëram nag woor na waaye ay cëram lu ko neex def boyal na leen ci lu ko sopp day mel bu mujj boobu nag mooy dëppoo xalaati Sëriñ Tuubaa moom am njàngaleem nda wax ne fa sawmu ay yasuumu kullu udwi an kulli ma yufdifatan li sahwi amsik an nadari lil harami wal mashi wa sami mal kalami wa kulli fikratin radiyatin kama amsakta an akli mushir bin ulima nee na woor daal mooy sa cër yépp dañuy woor ci lépp lu amul njariñ ci luy jural nit ki njuumte kon na nga téye say bët ci xol lu xaraam téye say tànk ci dox jëm ci lu xaraam téye say nopp ci déglu xaraam téye say làmmiñ ci wax lu xaraam ba ci say xalaat sax na nga ko tënk ba ci bu ci xalaat lu suufe mbaa lu doye di loo xam ne mbirum àddina ka dong dong dong lay def juróomeel mooy mu néewal aw aw ñamam ñam wu dagan mu néewal ko waxtu dog feesal diiram dell dell dell dell day mujj koor ga dootu dootu dootu ko am na njariñ ndax koor la ko tax a jóg mooy mooy mooy mooy mooy not not noonu bi yàlla bi damm ay bànneexam su fekkee ndikkeen dafa dafa dog fas yéene la ko rawoon ci ndékki mu dabaatal ko la ko rawoon ci añ mu dabaatal ko boole ko lim nar a reere su boobaa nag mën naa am xëy na lam waroon a jariñu ci koor gi njariñ la doo ci doo ci jot ci maanaam moomu la Sëriñ Tuubaa di wax ne wala tukaffir sufuur wal futuur moom teelal bat ne fa tuxramal ujur bul baril saw ñam ci waxtu xëddëg waxtu ndog feesal dell sa biir nee na képp ko feesal biiram aku ñam baril ak naanam baril ay nelawam ci koor moog bàyyi ma yee ca mbedd ma ñooyam kepp te yiwu baree baree bari faat na ko nee na am na ci ñooñ wa ba'dum yakulu aklal baqari waxta futur waxta waxta saxri ne ndaw ku ndaay bu ñu dog dañuy mel ne aw nag aw nag ku ne xam ne na muy lekk na muy naane nee na bu ñu dog dañuy mel ne aw nag rek ba ñu xëdd ba biiram gis gann xolam daal soxla woon ak leneen loolu jaam yàlla la ca nekk mooy nelaw rek bu muy wootee ne daa waroon te fekk lu toll ni fati sax topp ko ci koor ga yàlla na ci yàlla musal nga xam ne kon jublu ko war daal mooy xiif dam mu bànneex néewal man a dëgëral dëgëral bakkan ci ragal yàlla kon dana dana day aaju kon lam daa lekk guddi su waree lam daa lekk guddi na ca yam lam dam baaxoo lekk guddi rek lam baaxoo reere moo yem ci ba caa doon leen waaye da ngay gis ne nit ñi li ñu lekk ci koor mooy ëpp la ñuy lekk ba ñu war a gudd ndax lu doy waar la xam nga koor fi ne bu ñëwee dépense daa war a wàññi ko waaye fi ne koor bu ñëwee dépense day yokk loolu dootoo xam kon lu muy niru la ko taxoon jóg léegi day day day sànku bañ a bari ay nelawam itam ci bëccëg bi dafa war a yëg xiif war a yëg mar war a yëg itam néew kàttan ci loolu la ab xolam di selle saxal ci guddi gi nekk nag ndax mooy tax mu am woyof ak guddi gi nekk mën a mën a def itam ay nawaafilam tahajjud ak yàlla waraatam ma am woyof mën ko def waaye su diisee gan na nelaw dong lay man dootu mën leen subaa na kooku ku ñu yiir la ku fe ku wéetal biiram xiif na doy na rek du doy ci man koo yëkkatal xijaab yi digga ma boromam lu may dafa wéetal imam yitteem ci yàlla rek nga xam ne yitteem ci yàlla rek la koy jëme loolu ci fi la mbir mépp nekk nag waaye néewal aw ñam ba ko juróom benneel ci tax sawmul xusuus mën a am njariñ mën a mën a mat mooy ab xolam na bu dogee na ko aj ci diggante xaw fa ak rajaa ndax xamul ba xam xoor koor gi lu ñu nangul am ndéet suñ ko nangoo mu bokk ci muxarrabuna yi su ko nangoon bokk ci mam xuutin yi mujjug jaam yàlla gu nekk noonu la ci jaam war a mel rafet njort ci ne dañu ko nangu waaye ragal ci ne duñ ko nangu alxasanul basri yi dafa mas a romb aw nit ñuy xàqataay ak ree mu ne sumba soo jàlla day dafa def sawru ramadan mu nekk lu mu dencal ay bindeefam ñu di ca njëkkante ci topp ko aw nit jiitu dal di texe aw nit des gannaaw dal di dal di sooy mu ne ko nag danaa yéemu lool ci kiy xàqataay ak ree ak fo ci bis boo xam ne ña jiitu ca lañ texee ña des gannaaw ca lañ ca lañu sooye daa ne wallaahi su fekkoon muri nañ kiiraay li bañ jàkkaarloog la la la la fa ne lastaxala al muxsinu bi ixsaanihi wal musiu bi isaatihi mooy mbégtem kañu nangul dana ko soxlaal loo dana ko soxlaal wëlif muy fo waaye pertu kañu delloo ay jëfam nag dana ko doy sëkk ba mbëddal ko buntu bu ree ba du tal ree ba ñu axnaf dama axnaf nu xays mu ne dafa am dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko wax ne ko yow kan mag nga fi ne mag nga sa yaram at na tut koor day néewal doole mu ne inni a'idduhu li safarin tawil wa sabru ala ta'atillah subhanahu ahwanu min as-sabri ala adabi loolu gisin wu xóot a xóot la bu kawee daa man ka dama koy waajale tukki boo xam ne tukki bu gudd a gudd la te muñ jaamu yàlla gi moo gën a yomb muñ muñ mbugalum suñu borom loolu gis-gis bu kawe kawe kawe la kon ñi ngi jeexal ndax tom boobu sax daal ko moo ëpp ci waxtaan wi te jotu da xaaj sax nag muy muy muy muy koor lim lambo ci asrar ak ak ak ak ak ak baatin jotu taxaaj waaye na ko ne xam na ne bis bii ni ñu ko waxee ci njëlbeen Cheikh Amadou Mountakha da ko yittee lool da ci yebal ay ndaw sëñ Mahamadou Xabaan mi ngi nii toog ci suñu wet war a jot li kàddu sëriñ bi jëm ci mbooloo mi kon damay tëje rek lenn ci njariñ yi nga xam ne koor am na ko jeexale ko waxtaan wi ñu xam ne koor la ca ne ci njariñ mënee su ko wax lépp ci benn jotaay waaye daal ñu xam dafay laabal xol ci ay tër dafay tëskiya bakkan da koy sellal ci mboolem tër yi dafay yar ruuxu dafa koy sellal ci lépp loo xam ne ak ak lépp loo xam ne mën naa saafara aw maram ci ay duruus muhimma ci weer wii di weeru koor ak woor ko di ñu xamal ne itam weer weer weer la màgg wut barkeel woo xam ne weeru woor la weeru taxaw guddi la weeru jàng alxuraan la weeru gore ci sawara la weeru njëggal la weeru sarxe la weeru jëf lu baax la rafetal weer la wu ñuy ubbi mboolem bunti ajjana yi di ci ful mboolem jëf yu rafet yi di ci jéggale mboolem rëcc rëcc yi weer la wu ñuy nangoo ñaan yi di ci yëkkati daraja yi di ci jéggale ñaawteef yi weer la wax sunu ci gën a yaatal ak tabam subhanahu wa ta'ala ci ay tiraangaam ci ay jaamam ci xeeti tiraanga yu bari bari di ci dolli ay ay ay ay ay mayam ci ay awliyaawum koor it dafa làmboo ay xeekam yu màgg boo nga laabal xol sellal ko ci jikko yu ñaaw ni ki bon des gannaaw yàq tayel nay di ko tàmmal jikko yu tedd ni ki muñ lewet tab ak tiraanga jixaar ak bakkan ci lépp luy gërëm yàlla di ko di ko jegal bokk nañ njariñ itam dafay xamal bakkan bi dafay xamal jaam bi boppam mu xam boppam xam ay aajoom xam ak lottam xam ak aajaw boromam di ko fàttali ne itam xéewalu màggu xéewalu yàlla ci moom saa bu yëgee xiif yëg ne mi ngi doon wëlbati wëlbati ko ci ay xéewal at mi lépp wenn weer képp ñu teg ko ca xiif loo ko ca dana xam ne kon dana dana ca xamee xéewalu yàlla nu mu yaatu ci moom su ko defee nag war na ci aji woor ji kon mu sàmmante lépp ci la la jaar ci nu sàmmante moom ndax sala sa nee na képp ku bàyyiwul jëf ne wax neen yàlla am solo ci koram koor nag kon tahdib la du ta'dib dama ko fa di wax koor du ta'dib waaye tahdib la maa du mbugal waaye yar la waaye soxtoo fekkoon amul benn njariñ bu ca laqatu it amul benn kes benn wàññi ko ne bu ca nekk ndax wàññi ko mi ngi bàyyi ko ci suu tasarrufi saay mi ñaawu jëfinu aji war ji rek ak ñàkka wéeru ko xolam kon lu néew la lu tukkee ci lu bari yàlla na suñu borom boole dimbale boole defal tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci yàlla na yàlla fegal lori lépp ak ñépp te fegal lépp ak ñépp ci sunu lor li gën ci nun yàlla sunu moon defal dëppale li nu gënal te def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa sunu waa nangul sunu taalibe wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu